gën a jege suñu boroom gën cee gaaw mooy ay teggin yu rafet atturuqul muusilatu ilallaahi taala ala adadi anfasil xalaaiq walakin aqrabaha ilallaahi taala al adabul mardi ne wa tasawufu kulluhu adabun moo tax mu daa wax ne képp ku ngeen gis mu jóg bëgg a jëm ci suñu borom te jaarewu ko ci ay teggin bu ngeen di wër ku wéradi na ngeen jàpp kooku fa kullu man bi gayrihi raamal wusul li xadratillaahi fa xumrun la nabil képp ku ngeen gis rek mu bëgg jëm suñu borom te jaarewu ko ci ay teggin du dem fenn sëriñ bi jàngal nañu teggin yooyu muy wax ñaata xeet la am mu ne teggin yëpp ñaari xeet rek moo ci am yu dox diggante jaam bi ak boroomam ak yu dox diggante jaam bi ak ay moromi néeg yi dox diggante jaam bi ak ñeent la jëfee ndigalam yi wattandiku tereem yi bu ko defalee xéewal mu sant bu ko tegee am nattu mu muñ ko imtisaalul awaamir wa tinaabu nawaahi wa shukru ala neema wa sabru ala bala ne teggin yi war a dox digganteem ak mbindeef yi ñett rek la mooy ku suñ borom teral mu teral ko ku suñ borom jey mu jey ko keneen ku mu banoon mu bakk noonu takrimu mukram wa sidraj mustadraj wa tarku gayrihima ala xaali xam ngeen ñaari baat yooyu li ko suñ bi tudd bari na lool ku suñ borom teral ak kum jey yaa asiman kulli min sidraji loolu sax suñ bi da koy junj ci xasida yi daan na ko filil mag ñi ne leen mukarram kuñ jey day mooy koo xam ne sas woo ko saa borom sas deselu ca dara ba ñax gum ca bàyyi rek da ko gisut daane waaye moom it la mu bëgg suñu borom bawu ci dara nam ko bëggee amee na ko na ne kooku mooy mooy ko suñu borom teral ne leen mustadraj kuñ jey mooy koo xam ne sas ko suñu borom sas waxuma la jeexal ko waaye ak ñax sax dagg ko ca daane te teewul la mu bëgg yàlla di ko defal ne loolu nag ab jey la sëriñ bi daane ko firi lu bari moo tax mu daa wax suñu borom mu musal ko ci lépp lu lu lu jëm ci ab jey euh, ndax mooy rek bu ñu gisee koo xam ne tegewut ci li suñu borom yoon wi suñu borom rëdd ba noppi li ñuy xool ñun di ko bëgg ci kaw suuf yépp mu di ko am na mu ko bëggee yooyu jaay la ko leen suñu borom di leen a a yey moo tax sëñ bi daa wax ne teggin yooyu moo am diggante jaam bi ak boromam ak digganteem ak moroomi jaamam na ngeen ciy def seen kéem kattan te addabu fi fi alanin wa sirri maal ali wa xalqihi bil birri tomb bu njëkk bi muy teggin yi nga xam ne ku ne rek war na ko sàmmanteel yu yu yu yu fardi yàlla daal yu individuel bi ci jiitu mooy teggi nii jëm ci diggante nit ki ak boppam bi ci jiitu mooy nit ki teggin nii mu war a sàmmante diggante ak moom boppam te mooy mu fexe ba di sànq waxtoom sànq waxtoom mu bañ koo def fexe ba du ko sànq di sàmm waxtoom te bañ koo sànq xam ngeen sëñ bi wax nañ ci masaalikul jinaan ne nooyi gune gu nit ki di nooyi gune lu lu cher la loo xam ne nit ki mën na cee fàggu lu ne bu ci bu ko defee ci ak yàlla daan ne gépp nooyi gu nit nooyi te defu ci ak topp yàlla loolu pertaange la bu ëllëgee bu ak ci la koy jural daan ne loolu mooy defu ci topp yàlla waaye defu ci mooy yàlla waaye su dee da cee defu mooy yàlla nag moom loolu mooy dëggi dëggi perte bu ëllëgee yomal xiyam ndax xam ngeen dundug nit ki ay noo la yu ñu tegale maanaam nangami nooyi la nit ki am ci kaw suuf yoo xam ne fu mu jeexee fa la ak dundam yem fu mu jeexee rek fa la yem sëñ bi ne genn gu ne nag nit ki da ko war di sàmm ba di fexe ba di ko def ci lu neex yàlla euh, mooy fexe rek baal ba sa nga sax ci li ñuy wax yoonu yàlla yoonu aljana sëñ bi waxoon na kenn ci mag ñi ne ko ndax xamee ngeen ku nekk ci yoonu aljana ak ku nekk ci yoonu safaan kooku ne ko loolu de moom yomb ta mu ne ko ah kay yomb naa xam ne ko dépp jëf jëpp jëf yoo xam ne yaa ngi koy jëf te leer la bu dee ne woon salaamaaleykum nga ne ko bismillah xamal ne loolu jëfi waa aljana la jëpp jëf joo xam ne yaa ngi koy jëf te bu aljana bu dee nuyoo woon nga ne ko may ma ma defaru xamal ne loolu jëfi waa sawara la kon na fexe ba sax yeen ci jëfi jëfi waa muy baat yu gàtt waaye yu tënk njàng la mu mu bare bari daana leen junj ci kon teggin bi ñu ci jiitu mooy yi nit ki war a sàmmanteel digganteem ak ay mbokkam ak digganteem ak ñi nga xam ne rek ñoom lay dundal sëriñ bi wax na ci masaalikul jinaan ne nit ki na fonk ay waajuram fonk ay baayam yu ndaw fonk ay nijaayam fonk ay magam fonk mbooleem koo xam ne rek jegeñaayal jegeñaaleem la mbokkam yépp wa kullu man sama alayka tukrimu wa kullu man saxaru anka tarxamu képp koo xam ne moo la mag nga jox ko cër képp koo xam ne yaa ko mag euh, nga yërëm ko loolu mën naa génn sax ci biir mbokk gi mën naa dugg ba ci liggéey yi ñuy séq fi ne ku ci sa kilifa rek nga jox ko cërub kilifteef gi koo xam ne yaa ko ci yilifit nga koy xool euh, bëtub yërmande bi daana leen junj it na leen bokk na ci ay teggin yi nit ki war a sàmmonteeg nit ñëpp mooy koo gis nga jàpp ne yaa ko amel cër boo ko war a jox wa min ta'addubika alla tanzura haqqan li nafsika ala koo gis rek jàppal na yaa ko ameel cër ak teggin yoo xam ne war nga koo jox bal i'tabir min nafsika al aadaba wala tutaaliban bihi al ashaaba sëriñ bi loolu la yaree woon mag ñi ba ku ci nekk boo dajek sa morom da nga jàpp ne yaa ko war a yëkkati yaa ko war a màggal xam nga nettali nañ ne fii ci armée li Touba yi sëñ Mourou Moussa daje na fi ci ab denc moo suñ sëñ bu Bousso ak sëñ Abdourahmane Lo ak ñenn ci mag ñi waajur soxna ma lañ doon denc sëñ Mbàkke bi mu ko taxaw ba noppi sëñ Muudu mooy xalif général des Mourides ci jamono jooju indi otoom jóge Daaru Xuddoos bi ñu dencee ba noppi sëñ Mbàkke ak sëñ Daam Abdourahmane Lo indi wuñu oto mu dox ak tànkam moom ñibbi ne sëfoor bi na yóbbu sëñ Mbàkke ak sëñ Daam Abdourahmane moom mi jiite murit mu dox ak tànkam moom dem ñibbi ne ko yóbbul sëñ Mbàkke ak sëñ sëñ Daam sëfoor bi dem ji sëñ Mbàkke ne ko sëñ Muudu ne la yóbbu ak sëñ Daam sëñ Mbàkke bu su ne ko keroog bi sëñ bi di woote ci Mbàkke Kajoor daa fekk mu yónni ma ba fekkuma fa sëñ daam moom a njëkkoon a jé moom ma njëkk a jébbalu keroog kon demal nga njëkk koo yóbbu ba noppi mu dem ci sëñ sëñ daam ne ko sëñ sëñ Moodu dane woon naa la yóbbu ne ko wax ko sëñ Mbàkke wax mu ne ko déedéet yóbbu sëñ Mbàkke ba noppi ndax moom moo ma gën a jege sëriñ bi nga xam ne kenn ku nekk ci ñoom fexe nga ba xool buntu bu war a tax nga yëkkati sa morom loolu la ñu sëriñ bi jàngaloon moo tax mu naan bal yaxtabir min nafsika al aadaba wala tutaaliban bihi al ashaaba koo gis rek jàppal ne yaa ko yaa ko war a yëkkati tënk bi rek mooy wakun maa naasi jamian dahraka kama tuhibu an yakunu maaka nit ku ne rek noo bëgg mu def la ko dee ko def noonu fi mu ne loolu bu ko ñëpp doxewoon ak jàmm day am koo gis foo bëgg mu teg rek teg ko fa ni ci yi ci des mooy sëriñ bi nuyoo wax na ne saa boo ñëwee fekk nit mu toog ak ku mën a doon yow mi nga xam ne yaa ko fekk si na nga xam ne yaa ko war a nuyu saa la nit nuyoo it na ko fay te na nga jàmmante ak moom wa in yakun minhu tida salaami faruddahu alayhi bilkalaami day di wax sax ci bu ñuy joxante loxo teggi nii nga xam ne war nañ koo sàmmonteel wax na ñett a ngi nii yoo xam ne ci teggi nii war di sàmmonteel bu ñuy joxante loxo ci la bokk bi ci jiitu mooy sooy nuyu nit wa haysuma saafaxtahu fa makkini yumnaaka min yumnaahu bil mustaxsani booy nuyu nit boo ko joxee loxo na nga ko nuyu téye loxoom ba mu yëg ne yëg nga ne yaa ngi koy nuyu mooy noonu di nuyoo ñëpp rek nga xam ne bu la nuyoo nga yëg ne yëg na ne yow yow doomu aadama nga daal waaw yëg na lool loolu sëñ bi da ko daan wax ne ixtitaaful yat dañ koy bañ maanaam joxe loxo rek rocc ko wala joxe ay cati baaraam loolu bokkut ci ay teggin yi bi daan jàngale daana waxit ne wa misluhu tarkul kalaam di nuyu nit jox ko loxo rek waxoo moom jàmmante woo defoo dara loolu it ci teggin yi nga xam ne moom la ñu digle nee na niki noonu it bokk na ci ay teggin ci booy joxe loxo summa almusaafahatu bil yadayni min jumlati al aadaabi misla zeyni jox jox nit ñaari loxo loolu ci ay teggin la bokk di nuyu nit nuyu kook sa ñaari loxo loolu ci ay teggin la bokk bi ci tegee mooy teggin yu ñu war a sàmmanteel bu ñu nekkee ci ab jotaay jotaay bu ñu nekk bu ne teggin yi ñu fa war a sàmmanteel sëriñ bi wax ne saaboo boo nekkee ci jotaay na dal bul bëri bi bul bari wax ju bëri dolli ci na nga néewal lool say reetaan te wartandi ko nag di xaqataay di yooxu ci kaw bari na ñoo xam ne bu ñu nekkoon fële ci ay jotaay seeni kàddu ngay njëkk a dégg bu ñuy xaqataay te siñ bi waxoon na ne wa kasratu daxki tumitul xalba fa xallilan na daxka turdi rabba ne ree ju bari di tex texe ju bari day day rey xolub jullit wala ayaasu billah te jullit bu xolam dee mooy dootu waaru dootu fàttali ko ëllëg xel ma dootu dem ci borom xam ne sëñ bi daana wax ne am na ñett yu nekk ci alxuraan yoo xam ne moo tax ba moom di ree di tex texe talu ko ñetti kullu yi nekk ci alxuraan ñoo tax taluma ko kullu nafsin zaiqatul mawt kullu man alayha faan ak kullu shay'in haalikun illa wajha bakkan bu ne dana faatu lu dul suñu borom dana fi mujj jóge ñépp dana fi jóge ba mu des yàlla kese subhaanahu wa taala sëriñ bi wax na ñetti kullu yooyu kenn du leen xam di ree bay tex texi ndax danga xam ne lu jar ree néew ci ko suuf si euh, beneen bi ci tege mooy teggin yoo xam ne sëriñ bi jàngale na ko ñu war koo sàmmanteel buñ toogee ku ñu mag wala suñu kilifa buñ toogee suñu kilifa rek moo xam kilifa ak diine wala gu mën a doon wala sa mbokk mu wax ne saa boo xamee ne yaa ngi nekk ak sa kilifa bul toogandoog moom ci kaw lu dul ne ngànt moo ko waral lu dul ne ngànt moo ko waral lu mel ni ngeen di bokk di tukki wala foo xam ne du fees mën a toog ci suuf waaye bu dul loolu bul toogandoog sa kilifa ci kaw mukk euh, wax ne it na ngay dal bu ngeen bokkee jotaay bul ko sës tamit bul bul ko sësu laa tajlis mu laa siqan bul ñëw ba sës sa kilifa loolu nag euh, bokk na ci daal ci teggin yi nga xam ne sëriñ bi sëriñ bi dégg na ko waaw kilifa yi daal war nañ di leen may tuuti espace léeg-léeg na am na wax may leen sëñ bi ñooñu feex fi ne sëñ bi nag wax na ne boo nekkeek sa kilifa sax bul ñëw ba sës ko dikk dee ko dànd tuuti mooy ni murid di daan nekk sëñ bu mag bi rek nee na boo nekkee boo toogee kilifa it bul bari looy geestu bul ko xool jàkk ci ay bëtit kilifa kenn du nekk moom di ko xool jàkk ci ay bët del lamsal wala ngay sëgg rek feeg waxul jëlu ngay wax si saa bu waxee nga wax euh, kem lam la laaj rek teggi ni ci tegee mooy yu ñu war a sàmmonteel bu ñu dee def li ñuy wax zikr wala wird moo xam dañuy jàng alxuraan wala ñu jàng xasida wala ñuy wird maaxuus wala ñuy wird leneen salaatu ala nabi istighfar sëriñ bi wax ne am na ñett yoo xam ne yu ñu war di sàmmonteel la waudda min aadaabi zikri zakiri juluusu abdin fi makanin taahiri mustaqbilal qiblati za tarabbu'i aw mutawarrikan kaman solla fa'i ne booy toog di wird ñett yi booy toog di sikkar di tudd yàlla rek jàng alxuraan lu ma la ñett yi na nga ko sàmmante sa sa kem kattan nekk fu laab jublu penku ak nga ferenku laay wala nga toog booy julli ni ngay toogee toogin woowu la ñuy toog bu ñu jàng alxuraan wala ñuy jàng xasida wala yeneen ferenku laay wala nga toog ni ngay toogee booy julli ñaan googu sëriñ bi waxoon na ci ay teggin yoo xam ne wax na ne nañ koy sàmmanteel ne képp ku bëgg a ñaan suñu borom dara ginnaaw bu ñu sàmmantee yëm tuddoon ca masaalik xam nga masaalik tuddoon na fa booy tàmbali musu ji saytaane julli ci yonent bi sallam tagg ko tudd màggam gi jéggalu ko wax sa soxla ne waaye ñett a nii yoo xam ne ñett ñi moom jëruñuy sonn di ñaan suñu borom du nangu seenu ñaan mukk ne ñett a ngi ñoo xam ne suñu borom du nangu seenu ñaan salaasatun daawatuhum laa tuqbalu qatan kama an nabii naqalu mukassirul ghibati aakilul haram zul ghilli wal hasadi aidan lil anam ne ku ku bëri ab jëw koo xam ne day jëw jëw bu bari koo xam ne day lekk alal ju koo xam ne dafa amee ci xolam dara ci soxor ak ki ñaan jërul muy ñaan suñ borom du nangu seenu ñaan yooyu bokk na ci teggin yi nga xam ne sëriñ bi wax na ne war nañ koy sàmmoonteel <clears throat> teggin yi ci des yi ci topp mooy saa bu ñu dee fàgg lu leew bu ñu dee liggéey sëriñ bi jàngal nañu ay teggin ñu war a sàmmoonteel mooy rek ñu xam ne euh, bu ñu dee sàkk lu leew nañ fexe ba yam ci li nga xam ne dafa dagan fexe ba suñu biir yi ñu bañ cee dugal dara loo xam ne lu xaraam la sëñ bi jàngal nañu ko ci fu bari ci mbindam buñu demee ci Munawwirus Sudur mi ngi wax naan laa tudxil xaraama fi lbatni wala ma fihi shubhatun balil xilla wila fakul xalaalan in aradta an tutia allah wa rasula ya haza al mutia saa boo bëggee topp yàlla yomb la saxal ci di lekk lu leew ndax nit ki saa bu lekkee lu xaraam du mën a jaamu yàlla baalum jaamu yàlla suñu borom du ko nangu Euh, loolu xam ngeen ñu war nañ cee bàyyi xel bu baax jamono ji jëflante bi ñu jëflante banque yi xeeti carte yi nga xam ne moo am te bari lool sëñ Soxna doo doon na ko waxtaanee fan yi ba ci jëflante yi ñu jëflante ci biir ci biir mbokk yi muy lu jëm ci wàllu ndayale yeeg bàyyale yeeg nijaayale yeeg yooyu nga xam ne wax dëgg xaaj bépp daganut yooyu yëpp jullit ñi war nañ koo wattandiku ñoom te xam ne bokku ci liñ leen digal bokk na ci yim daa waxit buñ dee fàggu buñ dee liggéey di fàggu lu nañ ko sàmmonteel mooy di wàkkilu ci yàlla te xam ne nag jëmmi wërsëg yi moom suñu borom noppi na ci wërsëg yi suñu borom noppi na ci moo tax mu daan wa annahu la satanaalu illa maa laka xat xaddara rabbun jalla na nga xam ne kat loo xër-xër mënoo fexe ba am ci wërsëg lu dul la suñu borom li suñu borom dogal ne moom nga war a am li annahu jafafa zaaka alxalama bi kulli cheyin kainin wa xasama suñu borom digg yi moom noppi na ci ku ne lim lay sedd Euh, ku ne lii sa alal ak lii sa wërsëg suñu borom noppi na ci xam nga ñaar bokkut alal ak wërsëg bokkut alal mooy li nga am wërsëg mooy li nga jëfandikoo nit ki mën naa yor ay milliards muy alal waaye lim ci lekk lim ci def lu baax loola moo cay wërsëgam li ci des boo fi jógee ñeneen donn ko seen wërsëg la moo tax sëriñ bi daa wax ne euh, buñ dee liggéey it nañ ko nañ ko nañ ci sàmmanteel ndigali suñu borom yi te gis ngeen léegi dem bi gone yi dem ci gaal gi Sénégal kenn xamul ñaata nit la ci ñàkk ci gone yoo xam ne ndeysaan dañoo demoon wuti wuti lañ doon def waaye nag xër gu ëpp yóbbee na ñenn ñi ñu jaare ko ci yoon yoo xam ne euh, wóorut ba ñu bari ñàkk seeni bakkan te sëñ bi waxoon na ne am na ñeent yoo xam ne suñ borom noppi na ci wa faraxal mawla min arba'in ajal wa xuluqin rizqin wa xalqin xul ajal ne ñeent yi suñu borom noppi na ci digg yi ñuy dund ci kaw suuf wërsëg yi ñu fi am jëf yi ñu fiy jëf ak suñu mujj ëllëg ndax dañuy tax ak duñ tax yooyu suñu borom noppi na ci te doot ci dellu ginnaaw ne kon euh, na nga xam yow mu bi rek ne wala yakunu ghayru yu yuridu xaral wala xarasta ayyuhal murid loo xër-xërit na nga xam ne li suñu borom tegal kese moom ngay moom munoo fi amee lu lu weesu lool te dañuy wax ne ku ku yàkkamti aw aminam aw wutiinam mën naa bañ a rafet ku yàkkamti aw aminam aw wutiinam mën naa bañ a rafet te tënk bi rek mooy kaw suuf si gii ñu ne nit mënu fee muusa muusa muus ba jëlee fi wenn fepp woo xam ne bokkuti wërsëgam munta ne nit munu fee dofa dofa dof tamit ba génn àdduna wàcc fi wenn fepp boo xam ne ci wërsëgam la bokkoon mënut a nekk tamit bala nga fay jóge li nga fi am lépp da nga ci jot fi mu ne ba ci sàcc bi sax li mel ne woon di ko sàcc daa yàkkamti waaye bu dee ci wërsëgam la bokk bu toogoon dana ci jot kon yooyu yëpp euh, sëriñ bi daana ko jàngale ngir bu ñu dee fàggulu lewit moo tax sax gis ngeen tur yi mu koy tuddee du ko tuddee amal muy liggéey waaye kasbul xalaal la koy tuddee talabul xalaal iltimaasul xalaal muy sàkk lu beneen bi ci topp muy tegg ñu war a sàmmoonteel suñu diggante ak keneen koo xam ne xëy na wuute nañ ay gisin wala bokkuñu daal fu ñu nekk bi ci jiitu sëriñ bi wax ne saa boo xamee ne nit dalaa xas wax la lu ñaaw teggin yi nga war a sàmmonte nit xas na la wax la loo xam loo xam ne wax ju la nee na bul mer mukk ngir wax juñ la wax ndax ku la wax wax ñaaw xoolal rek sa bopp lim la wax lim la wax bu dee dëgg la wax ju ñaaw la waaye xam nga ne lii mu wax dëgg la nee na xamal ne bu boobaa nga góor góorlu ba jikko jooju dañ ci yow moo ëpp njëriñ ci yow ngay mere kooku baa ngay jéem ma xuloog moom nee na ni ngay def rek mooy jàppal ne suñ borom moo bëgg a wax ak yow jaaree ko ci kii bëgg laa wax ne la jikko jikat jikko ju baaxut la te mi ngi yow fexeel mu dañ nu mu a gaawee nee na loolu mooy lim la wax dëgg la waaye bu dee lim la wax it wax ju ñaaw la waaye du dëgg nee na boobu jëru nga ci mer ndax li mu wax taqu la fenn bu ëllëgee dina ko lay ak boroomam nee na ni ngay def mooy da ngay jàpp ne rek wax ji suñu borom la bëgg a xamal ne la jikko ji la kii waxkat jikko ju baaxut la néewut ci yow waaye fexeel ba bu ko jege fenn nee na boo defee noonu ku la xasit jàmm rek moo ci mujj moo tax sëriñ bi daana tere lool mag ñi ñuy mer di topp seen mer daana leen wax ne boo meree bul ne damay def ba mu faju bul ne damay wax ba mu faju da ngay muñ ne ndax boo nee damay def ba mu faju day sopp ku sawar lakk la boo nee damay wax ba mu faju day sopp ku gaynde fàdd la ne boo nee damay muñ ba mu faju nag day mel ne daa sopp ku ndox mu sedd nga naan xam ngeen ne daane leen wax ne leen euh, kuy tooñ du mucc kuy fayu du noppalu ne leen te ñu tooñ la nga muñ war ngeen ko jàngee ci man te xam ne doy naa ci misaal ne ndax bu ñu la tooñee nga muñ suñu borom dalay fayul tooñ nga fay la muñ nga kon kuñ ci tooñ te na muñ te bu mu topp meram bii ci tege mooy teggi ni ñu war a jëflanteel bu ñu nit safaanu bi jàll mooy bu la nit taggee nag tagg la wax ci yow jikko yu rafet rafet sëriñ bi nee na bu nit ñëwee tagg la wax ci yow jikko yu rafet bul woru ci li mu wax xoolal bu baax li la wax nga xool sa bopp bu la leeree ne jikko yii mu wax mi ngi ci yow na ko sant yàlla te def sa kem kàttan ba sax ci jikko yooyu rafet rafet sa diggante yàlla xam nga ne néewul ci yow nee na xamal ne ñu lay tudd di tudd jikko yooyu du tax mukk mu nekk ci yow li fekk jikko woo ko comme ni nga xamee ne boo wéetoon di xalaat ci ñam yi gën a neex fekk dangaa xiif du tax mukk nga suur fekk lekkoo ci ne ni ngay def rek mooy jàppal ne suñ boroom a bëgg a wax ak yow jaaree ko ci kii ne la jikko yi ñu lay tuddalkat kat newut ci yow te jikko yu baax yi la ci jikko yi nit ñu baax ñi la bokk kon góorgóorlu ci ngeen nga mën a bokk ci gaañu baax daana waxit ne képp koo xam ne dañoo wuuteeg moom suñu mbokkum jullit mu ne rek bu ñu gisee ci moom ayib it nañ fas yéene ne ne képp ku gis ci yéen ayib ci menn mbokkum jullitam na fas ci xolam ne it ayib jii de du feeñee ci man mukk ba àdduna di tukk man raa minkum fi axihi ayban falyanwi allaa yazhara dalika al aybu min nafsihi minhu awdu na na fas ci xolam ne lii kat du feeñee ci man ko daana wax sax ne ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla na ngeen fexe ba teggin yi ngeen di jëflante seen diggante ñoom mooy ngeen di leen laabiire ak fexe ba tegaat leen ci yoon waaye bu leen leen di jéppi wala ngeen di leen ñaan yàlla ne waalam bi anna shafaqata ala al aasi afdalu min ad duaai alayhi ki nga xam ne day mooy yàlla nga ñeewante ko te yërëm ko moo gën nga di ko ñaan yàlla daanañu wax it ay teggin yu ñu war a sàmmoonteel ci ci misaal bu ñu doon li ñuy wax waxtaan maam débat ñaar ñoo xam ne xëy na bokkuñu ay gisin kenn ku nekk di wax ngir yaay sa morom sëriñ bi daana wax ne booy wax ak nit ba mu wax loo xam ne amut wala jàpp nga ne demeewut noonu bu ko wax mukk ne ko li nga wax du dëgg bu ko wax it ne ko li nga wax amut nee na donte yaa ko mag xoolal rek waxin bu gën a rafet nga wax ko ne ko xëy na ah man de kon xëy na maa juum waaye jàppewuma ko woon nii wala man damaa foogoon ne nangam waaye bul wax ak moom mukk di ko wax waxin woo xam ne dana ca gisee boppam ne saa bu ngeen di waxtaanee ci seen biir bu ngeen wuutee ay gisi nit de leen waxee ci anam googu ne na saa bu ngeen gisee nag koo xam ne werante moo ko tax a jóg mooy teggi ni ñu war a sàmmoonteel koo xam ne kii moom xam nañ ne dëgg taxu koo jóg werante rek moo ko tax a sëñ bi nee na bu nit jëm see ci yéen tam leneen li ñuy wax ji ak miraar rek moo ko tax a jóg bu leen weranteeg moom waaye diglu leen nag li muy wax bu baax a baax su ngeen xamee ne yéen a ci dëgg fa in kuntum ala alxaqi fala tujibu bu ngeen xamee ne yéen a ci dëgg bu leen ko tontu ndax xam ngeen ne yéen a ci dëgg waaye su ngeen xamee ne nag nekku leen ci dëgg fa tuubu ilallaahi na ngeen gaaw tuubal yàlla su ngeen demee ba xam ne rek ah, nekku leen ci dëgg fa tuubu ila alimil xayb wa shahadat ndax nag yàlla dëgg la bëgg donte daal génne ci gémmiñu keneen waaye bu nit de werante ak wax leen loo xam ne xam ngeen ne moo ne ci dëgg na ngeen tuubal yàlla te dem ci li nga xam ne nag mooy dëgg bi ci topp muy teggi ni ñu war a sàmmoonteel yi taalibe bi war a sàmmoonteel digganteem ak nit ñu baax ñi nu ñu baax ñëpp rek maanaam kii nit ku baax la goo xam ne du sab sëriñ waaye kii nit ñu baax ñi la bokk sëñ bi wax na ñett lañu war a sàmmonteeg ñoom bi ci njëkk mooy al-i'tiqaadu taam wa husnu zanni wa adamul i'tiraad mooy nga nangul leen nangu gu mat sëkk rafet njort ci ñoom bañ leen a diingat nee na képp nit ku baax ku ne ñetti teggin yooyu nga war a seen diggante ñoom bu dee sëb sëriñ ñett yooyu moom waxaale woon ko xëy na di nga ci dolli jëfe ay ndigalam ak bañ koo jiitu bañ jiitu sëb sëriñ loolu mooy ne rek lépp loo dégg mu jóge ci nit ñu baax ni donte mënoo koo firi nga delloo ko li sëriñ bi waxoon ca Masaalikul Jinaan ne saa bu ngeen gisee wax ju ngeen xamul ci wax nit ñu baax ni na ngeen ko delloo ci la Abdul Latif waxoon ne man kat waxi gaa ñu baax ñi euh, xawma lu muy firi waxi wàllu yi ndax man fii laa ne ñoom ñu ne feneen kalaama lawliyaa lastu afhamu li nii ana ana wa hum humu ne Abdul Latif daan wax ne ga wàllu wi daal man seeni wax du ma ci dugg ndax man daa am fa ma ne dafa dund ñoo am am feneen fu ñu nekk ñoom bokkuñ fu ñu nekk moo tax seeni wax du ci dugg moo tax saa boo déggee wax ju jóge ci nit ku baax donte du du sab sëriñ it li sëriñ bi digle rek mooy nga rafet ci njot te génn ci waaye bul ko weddi bul ko bul ko dingat daana wax it teggi niñu war a sàmmante diggante suñu diggante ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñu yor yeneen tarixa yi xam nga ci Masaalikul Jinaan tudd na sax Cheikh Ahmad Tidiane wirdu Tidiane ak wirdu xaadir ne ak wirdu yudut yooyu wu ci borom jàpp rek wu ci taalibe bi jàpp ci lu wér da koy àggale suñu borom ne ñoom ñëpp ci dëgg lañ nekk daane fa kulluhum yad'u al muridina ila taati rabbil arshi xaysuma jala bil istiqaamati fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim abad ne képp koo ci gis ci nit ñu baax ñooñu donte duñ say sëriñ xamal na ñoom ñëpp ci lu wér lañ ne ci lu baax lañ ne ci siraatal mustaqim lañ daa woote ci yoonu njub kon bu leen diingat bu leen xeeb bu leen xarab yooyu sëriñ bi daana ko daana ko daana ko soññe ci ñu sàmmoonteek moom ci suñu diggante ak ñi nga xam ne duñ suñuy sëriñ waaye ay ay nit yàlla lañ tomb bi ci topp muy teggi ni ñu war a sàmmonteel ci diggante way dencante yi yi soxna si ameel borom kër bi yi boroom kër bi amee soxnaam sëriñ bi bu dee yi soxna si war a sàmmonteel junj na ci lu bari xam ngeen bu ñu demee ci ndénkaale soxna Penda Diop nekkoon soxna ci sëñ Mor Anta Sali mi nga xam ne rakki sañ si ci sëñ Mbàkke Kajoor mi rakki sëñ Mor Anta Sali doon bàyyi ñu ndaw ci sëriñ bi juñu na ko ci ne ko ci biir bi mu ko waxee yi war jigéen ba noppi bi mu koy wax yi mu war digganteem ak ab sëriñam ne ko nag bul sàkku mukk ngërëmul yàlla te sàkkuwaale woo sa mu sa ngërëmul borom kër bu ragal yàlla boobu nga nekkal te xam ne kat jigéen ñi ñoom jigéen ñi seen jihaad dëgg du ci jël ay jaasi di xeex waaye mi ngi ci sàkku seen ngërëm yi boroom kër yu baax yi nekkal ne ko fépp saa soo xamee ne boroom kër bu ñu tege ci yoon gërëm na soxnaam suñ borom dina gërëm soxna sos bépp borom kër bu tege ci yoon te gërëmu soxnaam loolu dana yàqal soxna sa bu ëllëgee ne ko nag na nga xam ne mbugalum suñ borom kenn mënu cee mucc lu dul ne da ngaa bàyyi ñeent yi ma lay bëgg a wax muy wax lu amut rëy nay ak ñaaw njort ne ko ñeent yi kenn mënut a mucc ëllëg lu ne da koo ba xam ngeen sëñ bi soññ la ba tàyyi soxna yi ci ñu ci ñuy sàmmante seen diggante ak seen borom kër am na ku nekkoon ci biir kër sëñ bi koo xam ne ci ñi fi yaroo la bokk ñu joxe woon ko fenn mu dem fa xëy na sëy ba neexut sonn na fa tuuti mu ñëw ci sëñ bi di jàmbat ñëw fekk sëñ bi mu toog mu jàmbata jàmbata jàmbat ba àggal sëñ bi ne ko sëy ñaar rek la coono bu sax dàkk ak naqar wu sax dàkk ne ko tey as gor day nangoo muñ coono ab jullit day nangoo muñ naqar ne ko te boo dee ku ñuy tudd di ma tudd ñaar yooyu di nga ci doon lenn dinga doon góor baa nga nekk jullit faaw mu doon ñaar yépp sax doo ko bokk ci moom da ko wax loolu rek kon loolu mooy bi mu ko defee ba pare soxna sa daa daal tàllal loxoom ne ko ñaanal ma ñaanal ko mu delluwaat ci sëy bi loolu it waajur war nañ ci dimbalee seenu njaboot ba di leen soññ ci sëy yi ñu xam ne du bu ñuy woo jigéen naan ko na nga muñ mooy dañoo xam ne la muy fekki du neex moo tax donte góor ñi dañoo war a góorgóorlu it nag loolu sëriñ bi daana ko daana ko junj euh, bi ginnaaw bi sax woowoon na ñenn ci mag ñi ne nettali leen ko ne leen nag ku ci amati ku kuy dem fenn rek na ko defal lii muy ab yóbbalam bu dee boroom kër yi ñoom it teggin yi war seen diggante ak seen soxna sëriñ bi jàngal na ci lu bari wax na ci gàttal fexe na war nañoo fexe bañ jàng seen diine di leen soññ ci yaamu yàlla yërëm leen te di leen ñeewante di leen jàppale xam ngeen sëñ bi waxoon na gaañi ne leen dafa am ñeenti jikko yoo xam ne faaw ngeen yor ko doog a mën a yor soxna jigéen ñi faaw ngeen yor ñeenti jikkoo doog leen mën a yor jigéen ku ne da koy mënal njëkk di ko muñal di jëlale tey jéggale nee na ñeent ci lañuy yoree jigéen di ko muñal da koy mënal njëkk di ko muñal di jëllale te jéggale daan na leen soññ it ci ñu bañ a xaabaabal ci kilifteef gi nga xam ne borom kër moo ko am ci soxna xam ngeen borom kër mooy kilif ak soxna si waaye sëriñ bi daan na leen soññ ci ne buñ ci xabaabal nag nañ xam ne kilifteef la goog ñu ànd ñu ne faw mu am ku nekk kilifa te góor ñi ñooy kilifa soxna lu àdduna yàgg-yàgg waaye daan leen soññ ci ñu bañ cee xabaabal ne leen na ngeen bàyyi ci jox soxna mu jàpp ne ab jaam lañ ko jox duñ seeni jaam jaam yàlla lañ dañoo bëgg ngeen ànd ci dëgg di jaamu yàlla kon lu ngeen leen di digal na fekk ngeen ne ci lu ngeen leen di na fekk ngeen bàyyi ko bi loolu la daan digal góor ñi ñu di ci sàmmante lool ndax léegi léeg it ñenn ci góor ñi ñu xaa xaabaabal ci kilifteef googu ñu am ci ci soxna yi gis ngeen kooku ñëwoon ci sëriñ bi fekk soxna soxnaam dafa faatu mu ne ko sama soxna dafa faatu jamono yii na ko ñaanal laata sëñ bi wax mu ne ko waaye moom sax nag xam naa ne moom dana baax ndax man gërëm naa ko sëñ bi ne ko yow ku la gërëm mu ne teg ne ko yow ku la gërëm ba nga naan gërëm naa ko bu ñu naan bu naan gërëmul borom kër daa am borom kër bu tax ñuy wax borom kër bu tege ci yoon Cheikh waxoon na ko ne ne leen jigéen bu amee ngërëmul borom këram aljanaay këram ne ah doom loolu wax wolof la rek waaye mat naa seetaat ne ndax monsieur gërëm na madame te du tee ñooy ànd dem sawara ñoom ñaar monsieur gërëm na madame te tee ñoom ñaar ñooy ànd dem sawara ne ne buñ naan jigéen bu làqee ngërëmul borom këram aljanaay këram day fekk borom kër ba làq ngërëmul yàlla kookaa tax ñuy wax moo tax sëñ bi bi muy wax ak soxna Penda Diop wala tarumi taatallaahi bi la taati zawjiki taqi yi la ko wax zilon la sa borom kër bu ragal yàlla boobu nga nekkal del sàkk waale ngërëmam kon yooyu boroom kër yi war nañ cee bàyyi xel xam ne kilifteef gi ñu yilifee jigéen ñi mooy ci dëgg mooy ci dëgg euh, loolu mu ngi noonu ñoo ko dégg na beneen bi ci topp muy teggin yoo xam ne nag war nañ koo sàmmoonteel ci diggante mi ngi dox ci diggante ñépp ñi nga xam ne dañoo yilif ak képp koo xam ne dañ ko yilif loolu bawut kenn mën nañ koo xaaj ñeenti xaaj bu njëkk bi yi war ñi nga xam ne dañ leen yilif li war ñi nga xam ne ay kilifay aada lañ li war ñi nga xam ne ay kilifay diine lañ bi ci jiitu ak li nga war li war ñi nga xam ne ay kilifay njaboot lañ rek bi ci jiitu muy mbooloo mi mbooloo mi man mii ci ñi ma bokk daal ñi ñi yilif ñooñu sëriñ bi jàngale na ci ay teggin yu bari ñu war a sàmmanteel bi ci jiitu sëñ bi génn woon na benn bataaxal bi mu fi nekk bind ci ne maa ngi leen di nuyu bu baax di xam le ne képp ku ne ci man la aju digal naa ko ñett yi may bëgg a wax mu sax ci topp yàlla ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak am ay teggin nag ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi mu chef de canton yeeg ñi fi nekkoon jamono jooju ne leen ñett yooyu digal naa leen ko ne leen ni ngeen di amee ni ngeen di toppee yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi nag li ma ci jublu mooy lépp loo xam ne da leen di yàqal tey ak ëllëg ngeen wattandiku ko ni ngeen di amee seeni teggin ak ñi nga xam ne ñoo réew mi it ma ci jublu mooy lépp loo xam ne lu mën a indi ab yëngu la wala ay yàq ci réew mi nangeen def seen kem kàttan ba bu leen ci kenn dégg daan di daal di bind ca suuf ne képp ko gis mbind mii wala mu gis fu ñu ko toxalee wala rek mu dégg ñu wax ko te jëfewul lii ma ci wax lu ko dal ëllëg na xam ne moo ko teg boppam loolu sëriñ bi daana ko digle muy lu ñu soxla lool ci jamono ji ba bu ñu soxlaatee lépp loo xam ne rek lu yëngal réew mi la wala lu mën ko yàq taalibe yi ñoom sëriñ bi joxoñoon na leen ci lépp lu ñuy sàkku nañ ko wut ci ay teggin waaye lépp lu mën a indi ab yàq nañ def seen kem kàttan ba sori ko beneen bi ci topp muy teggin yoo xam ne sëriñ bi wax na ne war nañ koy sàmmoonteel ak nit si àdduna yi nit si àdduna ne maa ngi leen di dénk ngeen am ay teggin seen digganteeg nit si àdduna yi ne teggin yi ngeen di amee seen digganteek ñoom nag mooy ngeen def seen diggante ñoom li ñuy wax mudaaraat mudaaraat mudaaraat mooy maslaa ñoom ci loo xam ne rek naqariwul yàlla daane li ma jublu ci mudaara nag mooy an turdiyal bi ma la takunu fihi maasiyatul xaaliq mooy ngeen fexe ba jaam ñi ngeen bégal leen dugal ci seen xol yi mbégte moo xam ne du ngeen ko defee ci lu naqar yàlla nag daan ne loolu mooy mudaaraat waaye wut lu nit ne wut lu neex nit ci lu naqar yàlla moom wala ayaasu billaah li muy indi mooy ngëm gu rekkiku ak torox ëllëg al boo yomal xiyaame daan ne te sax yonente bi sallallahu alayhi waxoon na ne laa taa'ata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq amul benn mbindeef moo xam ne war nañ koo topp ci loo xam ne neexul suñu borom loolu sëriñ bi daanako ko digle ci ne bu ñuy bu ñuy jaxasoo nit yi àdduna yi dafa war a am ay limites ay limites yu ma war a mooy bu ñu dugal mukk ci lu diine ba gut bu ñu dugal ci dara loo xam ne day woyofal diine loolu taalibe bu ne buy jaxasoog nit yi àdduna yi war na cee bàyyi xel ba duñ ko dugal mukk ci loo xam ne lu woyofal diine la bu dee suñu digganteeg nit ñëpp am na lettre bu mu bindoon borom Daaru Muxti ne ko waxal ñi ne leen bi annahum ma'muruuna bi jalbil masaalih wa bi jabri xawaatiri nnaasi bi muwaafaqati bi muwaafaqatihim fi kulli ma fihi ridallah fi kulli ma fihi ridallahi taala ne ko kat nee leen digal nañ leen ñoom ñëpp taalibe yi nañ góorlu ci fexe ba ñu yéwénoo ak nit ñi lépp lu indi jàmm nañ fexe ba bu leen ci kenn man nañ fexe ba di jubóog nit ñi li feek mu ngi doon loo xam ne rek ci loo xam ne naqariwul suñu borom lépp lu mën a indi jàmm ci réew mi rek nee leen nañ ci def seen kem kàttan loolu laa leen diggan kon loolu bokk na ci teggi yi nga xam ne sëriñ bi digle na ko mbooloo mépp war koo sàmmoonteel muy loo xam ne bawul dara suñu digganteeg suñu diine niñ ci war a sàmmoonteel suñu digganteeg nit ci àdduna yi suñu digganteeg ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi te nee na teggin yi wala dox suñu diggante ak ñoom mooy ñu fexe ba rek lépp luy indi jàmm ci réew mi ñun bu ñu ci kenn man beneen bi ci topp muy teggin nii war a dox diggante kilifay aada yi kilifay aada yi ak ñi nga xam ne dañ leen a yilif mooy képp ku yor paluk àdduna moo xam président nga moo xam ab ministre nga moo xam gouverneur nga moo xam leneen loo ma doon waaye paluk àdduna lañ la jox mën nañ ci jël ñaari misaal yoo xam ne bu ci nekk sëñ bi ci ak njabootam la ko yónnee woon ñoo xam ne ay taalibeem lañ ku ci nekk da ngaa yoroon pal goo xam ne da ngaa yilifoon mbooloo muy sàmbalaw ba njaay ak ahmadu xuraja nekkoon rakk ci Lat Joor ñu ñoon ñëpp ay taalibe sëriñ bi la ñoon danaa jàng ñaari bataaxal yi rek ci lu gaaw bu njëkk bi bu sàmbalaw bi euh, daf ko wax ne ko bataaxal bii mi ngi jëm ci sàmbalaw bi njaay and lii maa ngi ko jëmee ci buur ba jolof sàmbalaw bi mu ngi jóge ci jaam bii nga xam ne nag doyloo na sëkk li ko yàlla defal maa ngi lay nuyu bu baax te di la jox sa wàccuwaay di la xamal ne it ndaw li nga yabaloon agsi na jotali na ma say nuyoo wax na ma yit ne dangay ngay sàkku ma bindal la laabiire goo xam ne da nga ci mën a waaroo ne ko looloo tax ma bindal la lii ma lay bëgg a wax ne ko na nga xam ne kat àdduna du la jox lu dul loo xam ne da ko nangoo ci say moroom du jox say moroom it lu dul loo xam ne da ko nangoo ci yow maanaam bu tayee mu ànd ak yow bu subaa mu won la ginnaaw bu tayee mu reeloo la bu subaa mu jooyloo la ne ko ginnaaw noonu la demee nag na nga fexe ba buy ree bul ci waru ndax àdduna saa bu la wanee xar kanam bu bu bu rafet rek balaa yàgg mu soppi ji ko kon bu mu la war mukk ne ko maa ngi lay dénkit na nga def sa kem kàttan ci di dimbali ñi nga xam ne ay way néew doo ay ñi nga xam ne ay néew doole lañ ak woy ñàkk yi nanga sax ci di leen dimbale ndax yow la réew mi fal ndax foofu nga nekk yaa leen jiite na nga wan ginnaaw lépp loo xam ne ak tooñ la ak jaay doole ndax képp kuy tooñ du mucc te képp kuy jaay doole faw dina am bis wa man jaara baar ne koy na nga xam ne xéewal yi nga yor tey ak nguur gi li muy rëy rëy ci ñaari anam rek nga ci jote lii dafa génnee ci ay loxo yi nit ñoo xam ne dañ leen a folli nga jot ci lii ña ko seeni borom dañoo faatu nga jot ci ne ko ci ñaari anam yooyu rek nga koy ñàkkee it faaw bis ñëw nga folle ko nguur gi génn say loxo baa nga génn àdduna ba fi nguur gi ne ko ginnaaw noonu la demee nag na nga góorgóorlu sa kem kàttan ba balaa ngaa génn àdduna baa nguur gi di génn sa loxo nga liggéey ci nga liggéeyal ci yàlla loola mën a jariñ bu ëllëgee yowmal xiyaam ne ko li ma la doon dénk nag fii la yem soo ko jëfee fa lillaahi boo ko jëfewut nag lu la ci teg lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp loolu ki sëriñ bi di waxal lii mën nga ne président de la république la jolof gépp moo ko jiite waaye ni mu tàmbalee lettre bi rek war na ko ne ko dëgg doo nga la koy wax ndax nee na ko ki ki bind lii mi ngi jógee ci ki nga xam ne doyloo na sëkk li ko yàlla defal mooy soxlaa lu dara beneen bataaxal bi ci topp sëriñ bi yónnee ko Ahmadou ma xuraja kooku rakk la woon ci Lat Joor taalibu sëriñ bi la woon moom it mu ne ko maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay bataaxal bii nag li ko waral mooy di la xamal ne sa waajur jigéen wi nga ma doon tàgge nañ ma ko maa ngi ñaan suñu borom mu boole ñu yërëm tey jii nag ginnaaw jóge na fi lii rek moo fi des mooy nga di ko ñaanal ak di ko sàkkal sarax ak nag di waajal dee googu nga xam ne moo leen teqale na nga xam ne ni nga mën a waajalee dee it mooy nga tuub tuub bu sell ni ngay tuubee tuub bu sell nag mooy nga génn ci lépp loo xam ne diine da koo bañ donte aada da koo bëgg jëm ci mbooleem loo xam ne diine da koo bëgg donte aada da koo bañ ne ko na nga jiital diine ci lépp noonu mooy tuub gi ma lay digal fi mu ne ne ko na nga xam ne it li fi jëlee sa waajur wu jigéen woowu ba gisatoo ko faaw bis dina ñëw mu jëlee la fi ba sa njaboot googu la wër dootul la gis ne ko faaw malaakal mawti dana ñëw seet si la bis jël si sa ruu googu nga yor ni nga xamee ne dana seet si mboolem bi def yëpp ne ko te saa buy ñëw kat bu bu rëy wala fas yu bari mënut dox diggante mu def li mu war a def ne ko sa mbokk mii di silmaxa jóg muy Lat Joor fàttalikul jarbaatam bii di Sàmba Lawbe Fall fàttalikul ñoom ñooñu noonu nguur yu rëy yi ñu yoroon keroog bi ma malaakal mawtu ñëwee ngir def liggéeyam kenn mun kenn teewu ko def li mu ne ko fàttaliku sax sa baay ak sa maam yi fi jiitoo nekkal nekkoon ay dammel ñoom ñëpp bi dogal bi ñëwee kenn mënu koo téye ne ko ginnaaw noonu la demee nag li ma lay digal mooy na nga yeesalaat sa tuub yow ni nga koy yeesalee nag mooy képp koo xam ne amee la nga ko àq bi raddil mazalimi képp koo amel àq nga delloo ko àq ji ku ne àq ji nga ko ameel gaawal nga delloo ko ci nu mu gën a gaawee te nga tuubal yàlla it sa borom ne ko te nga xam ne it li dox sa diggante ak jaam yi mënu koo lijjanti lu dul nga delloo leen àq yooyu tooñ yi nga tooñoon nit ñi dara mënu koo dindi lu dul nga baalu leen àq delloo leen seen àq nga leen amel yi dox sa diggante ak sa borom nag moom saa boo ko tuubee mu jéggal la ko kon nanga gaaw ci fexe ba jéggalu sa boroom te delloo nit ñi ak yi nga leen amee ne ko nanga xam ne it ëllëg ci sa borom dara mënu la faa jariñ lu dul jëf joo xam ne danga nga koo jëf te yàlla rek tax ne ko li ma la doon dénk mi ngi noonu lii nag mooy dëgg gi nga xam ne laa xubaara alayhi mooy dëgg gi nga xam ne benn sikki sàkk amu ci soo ko xamee nii ma la ko waxee nag fa alhamdulilahi rabbil alamin soo ko xamee woon nii ma la ko waxee nag fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaari bataaxal yi bu ci nekk sëñ bi kilifa diin kilifa maanaam président de la république la ko yónnee ku ci nekk dangay jiital lu dul jeex ñu mën cee jàngatee lu bari ñaari bataaxal yi mën nañ cee jàngate ne kilifa aada gu war nay diisoo ak kilifa diine ak boroom xam-xam yi ndax danañ leen di delloosi ci yoon wi dinañ ci jàngate it ne diine lañ war a jiital ci aada ndax sëriñ bi wax na ko ne ko nga génn ci lépp loo xam ne diine da koo bëggut donte aada da koo bëgg jëm ci mboolem loo xam ne diine da koo bëgg donte aada da koo bañ kon diine lañ war a jiital ci lépp feññe ci it ne ku jiite mbooloo war naa wattandiku cooñ tooñ ak ak ak jaay doole tooñ ak jaay doole maanaam maandu ku jiite mbooloo mi ku ne war na ko sàmmanteel kem kàttanam waaye feeñ na ci ne way néew doole yi ak way ñàkk yi ki jiite réew mi ak ki jiite mbooloo mi war na di leen dimbale war na ñit di waaroo ci ñi nga xam ne ñoo leen jiite woon te xam ne nguur gu dul nguur suñ borom rek nguur gu jeex la beneen bi ci topp mooy teggin yi war a dox diggante kilifay diine yi ak kilifay aada yi loolu mën nañ cee jëlee lu mel ne lii sëriñ bi def mooy di leen laabiire ak di leen waar ngir ñuy dellu si ci yoon wi saa bu ñu naree wàcc yoon wi ñu delloo si leen di ko def nag bil ma ndax sëñ bi kenn ku nekk ci ñii waar na la waar woo xam ne boo déggee li mu la wax faaw di nga ko jafe ji te waxu ci kenn wax joo xam ne mën na su ko dégg néew ci kenn ab tooñkat nga néew ci kenn ab jaaykas doole nga yaaykat doole nga waaye ku ci nekk rek wax na la ne la na nga ban nangam te def nangam kon it bu ñu leen di laa bu ñuy laabiire kilifay aada it ñu di ko jaare ci yoon wi lislaam jàngale ak di leen fàttali li leen fi indi te ba leen fi te mooy ñu dimbale nit ñi kilifay aada yi mbooloo mi ñoo leen fi ba loolu it dañ ko war a xam waaye soññu leen tamit ci ñuy góorgóorlu ci lépp loo xam ne rek mën naa indi jàmm ci réew mi ci gàttal kilifak aada kilifa diine nu mu war a doxe kilifa aada mooy nii sëñ Muntaxa di doxe kilifa aada yi kepp jërul guddal ni muy doxeek ñoom rek saa bu ñu naree jàdd mu jubbante saa bu réew mi naree yëngu mu génn taxaw wax ngir moo njaboote mbado moo njaboote ñëpp te bu waxee ñu xam ne farut fenn bu waxee ñu xam ne ñëpp la fi nekkal mbooloo mi duñ ko xërtal ba dugal ko ci mu def lu mu war def saa bu jëfee ñu xam ne kilifa moo jëf bu waxee ñu xam ne kilifa moo moo wax loolu kilifa diine yi war nañ koy sàmmante seen diggante ak njaboot yi ak kilifay aada yi beneen bi ci topp muy teggin yi nga xam ne war nañ koo sàmmante ci képp koo xam ne rek dafa dafa yilif moo xam kilifa diine gi yilif mbooloo la wala sax kilifa gu yilif ak njabootam bi ci jiitu mooy sëriñ bi waxoon na ne wa allimu abnaakum wa azwaajakum wa kulla man taallaq bi azyalikum maa awjabahu llaahu alayhim illa sawfa tusaluuna yowma alxiyaama ne yéen ñii lii sëriñ bi seex si la ko yónnee woon seex si la yónnee woon bataaxal bi ne leen na ngeen jàngal seeni doom seeni soxna jërëjëf seeni doom seeni soxna mbooleem ñi nga xam ne yéen a leen yilif na ngeen fexe ba jàngal leen li nga xam ne moo moom la ñu war a xam ci seen diine ne leen su ngeen ko defut wa illaa sawfa tusaluuna yawmal xiyaam su ngeen ko defut bu ëllëgee yawmal xiyaam suñu borom dina leen ko laaj yéen ñoo ñu leen yilifoon na ngeen fexe ba jàngal leen seeni farata bañ xam ko fi ne borom kër bu ne daa war a taxaw ba soxnaam xam ay farataam moom rawatina yu jëm ci ay laab julli sangu farata yooyu ku ne daa war a def kem kàttanam ba ak njabootam ñu xam ko ak ci anam guñ ko mën a xame sëñ bi loolu mu doon digal seex si it moom naka jekk ci la nekkoon am na bataaxal bu mu bind di wax ne lii maa ko jëmee ci mbooleem taalibe yu góor yi ak yu jigéen ñi di leen xamal ne digal naa képp ku ne ci man la aju te yàlla rek tax nañ dem xam lu seeni farata lépp lu jëm ci pas-pas attey laab julli koor ak mbooleem loo xam ne dafa war mu kallaf maa ngi leen di digal nañ dem xam lu ju ko ñoom murit yépp tekki ne wa inni takafaltu lakum wala kunna bi tawaali fa yakunu fiha jamiu zalik ne it maa ngi leen xamal ne nag loolu ma leen digal warlul naa leen ne dinaa leen taalifal téere yoo xam ne loolu lépp dina ci nekk mooy téere yi mu taalif tasawul sixaat tasawul shubaan jawharu al jawharu nafis munawir sudur téere yooyu bi mu ko waxee wax dëgg def na ko téere yooyu mu leen waxoon dana ko bind sëriñ bi def na ko na mu ko waxee woon te suñu borom bi def na ci barke ndax téere sëriñ bi ku ci jàng xam loolu moom ñi ci jàngee ñëpp xam nañ ko téere sëriñ bi ku ci jàng xam loolu mu daan wax borom daaru bu ko jàngalee ba yàgg mu ne ko bàyyil li ci des mbokk dimbalee ko mbokkam nga xam du jar ñu ci jaar te borom daaru ne li ma siñ bi wax bàyyil mbokk dimbalee ko mbokkam moom laay gën a dégg sax ci li ma firil waaye lii sëriñ bi bi mu ko waxee def na ko xam ngeen bu yàggul rek am na mbokk yu génne téere bu ñu tuddee diwaanul ulum ad-diniya boo xam ne dajale nañ ci lu ëpp ñaar fukki téere ak juróom yoo xam ne téere xam-xam la yoo xam ne yépp sëriñ bi ko bind mu dugg ci lii mu digge woon ne dina ko def xam ngeen sëñ bi naka jekk dafa fonk am jàngale mës ta bàyyi jàngale it wuuteeg li ñuy wax sëñ bi mu jotee ndigalul Mbàkke Kajoor it dafa soppi nu mu doon jàngalee dafa dugal lu bees ci njàngale muy yer waaye mës ta bàyyi jàngale xam ngeen ba fii ci tu ba ba ba Mbàkke Bawal jàngale na fa Masaalikul Jinaan jàngal na ko sëñ Mbàkke Buso jàngal na fa Magaaliqun Niiraan jàngal na ko sëñ Amadou Kabir Mbay fii ci Touba daan na fi jàngale fii la dalale sax ñoom sëñ mënu ak sëñ Fall ba gànnaar sañ bi daan na fa jàngale soxna Aminta wax nañu bi mu fi jógee benn dars la dese woon ci ci ci ci ci risaala te fii ci Touba la génne àdduna ba ni mu demee ba njaareem mujj soppi anam gi mu doon jàngale def tombam yooyu waaye sañ bi mës ta bàyyi jàngale kon loolu euh, yu mat a bàyyi xel la bokk na ci it yi nga xam ne képp ku yilif war na koo bàyyi xel diggante mag ñi mu yëlif suñ mutulaa mi ngi may junj ne waxtu wi mi ngi jege si euh, mooy képp ku yilif mbooloo war naa fexe ba di leen digal di leen digal lu baax al amru bil maaruf wa nahy anil munkar di leen digal lu baax di leen tere ab safaan di leen soññ ci jaamu yàlla loolu sëriñ bi mësu cee jóg loolu it képp koo xam ne dafa jiite mbooloo ci turu diine loolu war na ko diggante mag ñi muy def saa su ne mu di leen di mu di mu leen di mu leen di soññ ci loolu yooyu xam ngeen li ci sëriñ bi def bari na lool saa su ne daan na soññee ci ñuy góor góorlu ci ñaar yi muy liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla am na ko ñëwoon ci moom di ko bëgg a di soxla ne ko mbàkke de dama am yitte joo xam ne bu yàlla jàllee yonent bi sallallahu alayhi jàll bëgg ko wax ne ko yow laa ci yaakaar sëñ bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne kon Ahmadu wéy kon Ahmadu wéy ñooñu bu ñu jàllee ma jàll ne ko nag yitte ñaar laa ci xam yitte àdduna ak yitte alaaxira yitte àdduna ju liggéey mënta faj xaw ma jooju yitte yitte alaaxira ju jaamu yàlla a faj xaw ma jooju yitte ne ko bismillah jën yitte nga am kooko taalal loo xam ne ko ñaanal na amatul leneen lu mu ko wax kon sëriñ bi loolu la daan soññ taalibee ci ñu xam ne jullit bi ñaar yooyu ñoo ko seq muy àdduna ak alaaxira te noonu la ci war a doxee daan na leen wax saa su ne wax ju leer ci soññu leen ci ñu xam ne suñ boroom dëgg la bëgg ak jaamu yàlla gis ngeen sëñ Malick Ndiaye lantinoor muy kooku nekkoon njaareem daan yëgle sëñ bi am na bis sëñ bi ne ko boo demal ba ca jaba mooy marché ba ne ko boo demee nee leen wax nga wax fere yi ne leen fere yi mooy taalibe yi ne leen def lu la neex wax lu la neex bu ëllëgee boo dee dem aljana ku xam fu mu am na fa dem man ahmadu awma jooju aljana ne ko neleen leen ma leen ko waaye dama ko amut soxorew ma leen ko waaye dama ko amut def lu la neex wax lu la neex bu ëllëgee nga dem aljana ku xam fu mu am na fa dem man ahmadu ow ma jooju aljana am na bis sax mu dajale mag ñi junj leen loo xam ne jamono junne rek nga koy gis wax leen ne leen kat jamono ngi ñëw ci kanam am màmm mu am màmm riir mu mag mbooloo mu bari moo xam ne dañuy àndandoo di fëx wuti safaan ba muy sawara ne te moo ne day ñoom ñooña bu ñu leen bu ngeen leen gisee man la ñuy tuddoo ci man lañ bokk te duñ def lu yàlla digle duñ bàyyi lu yàlla tere te fu ngeen leen gisee dañ naan ci man lañu bokk daane waaye buñ ci àggee na ngeen xam ne séquma ak ñoom dara daal di yëkkati loxoom ne wa ma kuntu muttaxisal mudillina aduda ne képp ku tegewu ci li suñu borom yoon wi suñ borom rëdd képp ku ci jaarut séquma ak yow dara loolu sëriñ bi daan na ko daan na ko daana wax it ne am na ñoo xam ne bu ëllëgee yomal xiyaam duñ ma gis du ma leen gis ndax la ma nekkoon dañ caa nekkut bu ëllëgee duñ ma gis du ma leen gis ndax la ma nekkoon dañ caa nekkut am na ku ñëwoon ci moom koo xam ne ci mbokki sëriñ bi la ci ñu sant Mbàkke ñëw ne ko kat ñun dañoo jaaxle ndax ñun amuñu ku dul yow te dañoo dégg gaañi naan yow amoo mbokk ne bi mu ko waxee sëñ bi joxoñ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ku amuti mbokk kooku ne teg commencé bëgg mu ne ko waaye nag képp kuñ ñu naan sama mbokk la ku ne lam baax la kese lañ bokk ma ak moom képp kuñ ñu naan sama mbokk la ku ne lam baax la dong lañ bokk ma ak moom mooy sëriñ bi li ñuy bokkee ci moom mooy ci ay jikko ci ay jikko nit mën naa sori lool te jege lool safaan bi mën naa am nag nit mën naa nekk fii jege lool te sori lool sëriñ bi wala ayaasu billah waxoon na taalibe yi fii bis ne leen bu kenn ci yéen yaakaar ne dañ koy tungoom tabal ko bu kenn ci yéen yaakaar ne dañ koy tungoom dugal ko biir aljana li leen di dugal aljana yéen koy liggéeyal seen bopp waxoon na ko léegi ci laabir ci ndénkaan loolu mu doon wax ko ko ne ko li lay jëriñ ëllëg yowmal xiyaam li mu doon wax ahmadu ma xulaja ne ko loolu mën a jëriñ sa borom ëllëg mooy jëf yoo xam ne da nga koo jëf te yàlla rek tax mooy ëllëg sëñ bi daal rëdd yoon wi jiitu na nañ leen dem li ñuy bokkee ci moom mooy ci ay jëf yu baax na fii soxna xawa bu so ne ko aljana benn buur la am muy yàlla te ku ko jaamuwul du la ca dugal ne ko aljana benn buur la am muy yàlla te ku ko jaamuwul du la ca dugal rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yaati bëgg aljana te jaarewoo ci lii yonent bi sansam rëddoon képp ku koy defee ci ay nax la nekk te bu ëllëgee dina xam ne ci ay nax la nekk sëriñ bi daan leen firil ñaari aay yi aaya bii di wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lah mooy suñu borom bu la tegee bu la tegee am not bu la tegee lor kenn mënu koo dindi ku dul moom ne leen loolu yéen li ngeen koy déggee mooy li mu ngeen koy firee mooy ragal ragal ko la ci mbindeef bu mu la yóbbee mukk ba ngay def ak mooy yàlla ndax saa boo defee mooy yàlla googu bu la suñ borom di mbugal kenn du mën a tegg mbugal bi yéen loolu li ngeen koy déggee mooy bu leen kenn dugal ci lu naqar yàlla ndax bu leen ci dugalee bu leen suñu borom di mbugal du leen ci mën a génn daan leen wax in ne leen wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi ne leen yéen loolu ni ngeen koy firee mooy da ngeen di fexe ba ruus menn mbindeef wala ragal ko bu mu tee ngeen def genn topp yàlla ndax xéewal gi leen suñu borom di fayee saa bu leen koy fayee kenn du ko mën a dindi seen loxo ci ñoom ñooñ muy aay yoo xam ne neneen lañ ko doon firee waaye sëñ bi ci geneen anam la leen koy firee daan leen junjit ne leen nañ góorgóorlu seen kem seen kem kattan ci sax ci li digle muy waajib muy mandub muy mu baax ne leen waajib mooy loo xam ne waajib ni ñu ko xamee ñoom suñu laa ñii ni ñu ko jàngale waajib mooy loo xam ne dafa war jullit bi loo xam ne bu ko defee ñu fay ko bu ko defut leneen mën na ko ca fekk mandub mooy loo xam ne laal sopp nañ ko ci moom bu ko defut xëy na ab yar mën na ko ci bañ a fekk waaye bu ko defee ñu ñu fay ko aw yiw mu baax loo xam ne dafa dagan rek dafa dagan sëñ bi firil leen ko ci geneen am gu wuute ne leen na ngeen xam seen waajib na ngeen xam seen mandub na ngeen xam seen mu baax ne ndax xam ngeen luy seen waajib ñu ne ko déedéet mu ne leen seen waajib mooy ngeen wàññandiku tër bi te xam ne ab tër a ngi ci kanam boo xam dina ñëw te bu ñëwee lu waaye bëggoon a tëdd dina ko tëdd ba tëdd lu mu bëggutoon tëdd ne muy dee loolu mooy seen waajib ne ndax xam ngeen seen mandub ñu ne ko déedéet mu ne leen seen mandub mooy ngeen wàññandiku damu bi ngeen wàññandiku ndamu bañ na démb la woon bis penc ne leen te bu boobaa sax du jar damu nag ndax foofa lu fooy am ñëpp dinañ ci teg bët kon bàyyi leen damu bi rek ne leen ndax xam ngeen seen mu baax mooy li dagan ci yéen ñu ne dee leen mu ne leen dara dara dara ba muy ñetti yoon ne leen dara ju njëkk ji mooy nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala mooy borom qudratu ak iraada te bu xàccee yaram ba kenn du ca tee bu xàccee yar ba kenn du ca kon jaamu ju leen yàlla ne leen daree ñaareel ji daree ñaareel ji mooy ngeen góor góorlu xam ne kat àdduna ji ñu nekk te xal seet fee jóge mët ta jëfal dara ndax lu ko waaye jëfal ñàkk na ko ne leen dara ju mujj ji nag mooy ngeen xam ne alaaxira jee ñu jëm te xalseet faa sax lu ko waaye jëfal jëtt naw ndax kat dara du fa doy muy ay baat yu gàtt yoo xam ne siñ bi ci ay wolof yu leer la koy wax yoo xam ne bu ñu ko doon taaraar di ko tasaare di ko di ko yaatal ay xadis ak ay aay yu baree bari lay jël tënk ko ci ay baati wolof daan na leen junj ne leen yooyu na ngeen fexe ba seen kem kattan nga di ngeen di ci góorgóorlu daan na leen waxit ne leen nañ xam ne ñoom ay jullit lañ yoo xam ne dañoo war a nekk ay gor na ngeen góorlu ba nekk ay gor wax leen juróom-ñetti mbir yoo xam ne nee na leen ngir nit ki nekk gor faw juróom-ñett yooyu day nekk ci moom juróom-ñetti mbir yoo xam ne ku ne da ko war a sàmmanteel boo bëggee nekk gor gor du jàpp di bàyyi gor du sopp gor du weddi wor gor du digalum narut gor dina jëflante ku ko jikkoom soof gor dina gor dina teral kum xamut gor dina dimbale kum tane gor dina xam lu jar wax noppi ne leen juróom-ñett yi gor su da ko war a sàmmanteel bu bëggee nekk gor juróom-ñett yooyu nag bu ñu tegoon fii ab appareil ci télé bi moom ne ku fi jaar te manqué benn dina sone ci sone lay dëkk moom loolu moom wala boog dina bari lu muy sone xanaa sama classe gi bañ faa jaar waaye moom daal mi ngi noonu juróom-ñett yooyu kenn ku nekk ci ñun na ci xool boppam rek bu wéetee mu xool fu mu ci ne bu ci bu matee moo waxaat ko waaye juróom-ñett yi mooy sëñ bi daa wax ne juróom-ñett yi faaw gor sàmmonte ko bëgg a nekk gor gor du jàpp di bàyyi gor du soppi ko gor du weddi wor gor du digelum narut gor dina jëflante ku ko jikkoom soof gor dina teral kum xamut gor dina dimbale kum tane gor dina xam lu jar a wax noppi léegi nag nañ ci xool suñ bopp ñun ñëpp rek ku am juróom-ñett yëpp mu sante ko yàlla li sëñ bi ku ci manqué benn nit mu def ko mu yitteeku ngir juróom-ñett yooyu mat ndax sëriñ bi woon na soxna sa boo bëggee at boo boo dee ku ñuy tudd di ma tudd di nga nekk jullis di nga nekk gor daana leen waxit na leen nañuy wattandiku di boole jëf ju baax ak jëf ju bon daana leen wax loolu ne leen na ngeen fexe ba <clears throat> wattandiku di boole di jaxase jëf ju baax ak jëf ju bon loolu bari na léegi fi ne bu bu bu bu julli jotee jumaa ji fees dell waaye ñoo ñu nekk ci jumaa ji xaaj bépp ñooy demaat ci fi ñuy defee yi ñu tere yenn nit ñi la sëñ bi daal na leen wax na leen nañu wattandiku di jaxase jëf yu baax ak jëf yu baaxut ne leen bu ngeen gisee ma di leen tere jaxase jëf yu baax ak jëf yu baaxut di ko boole li tax baaxut mooy ne leen tey ñu ngi fii ci jolof waaye li dalee fii fi jolof ba fa gën a sori ci Saalum lu baax a ngi ne fi gàññ waaye am ko te ci kenn mënu ko am daanaka te lu baax a ngi ne fi gàññ ne leen li ko waral mooy nit ñi dañuy boole jëf ju baax ak jëf ju baaxut ne leen su ma leen ko doon misaal mooy jëf ju baax ak jëf ju baaxut mooy nit ku dem defar ngunoom ba mu baax kaaf bu baax daaj ko ba mu baax mu dem jël ay muusi siiru dugal leen ci biir kaaf gi tëj leen dem góorgóorlu ba am ak ginaaram ne da koy yar ñëw dugal ko ci biir muusi tëj ko fa dem ne ndaxam moos saa bu ubbee kaaf ga ay siiru la fa xala fekk waaye du fa fekk ginaar ne leen boole jëf ju baax ak jëf ju baaxut noonu la mel jëf yu baaxut yi day lekk jëf baax yi kon na ngeen ko wattandiku daana leen soññ ci ne leen fu ñu jëm nañ fexe ba nekkal ko fa te di fa wane njàngaleem mi am na ñu mu waxoon ci mag ñi bis yewe leen ba ñuy dem woo leen ne leen ba bu ñu bu ne it war na ko sàmmonteel ba fépp fu mu nekk rek gis ngeen sëñ Sidi Haaji Malik radiyallahu anhu seere su am su su su rafet soosu mu seere woon ci sëriñ bi ci ay jikko la gis moo tax mu seere wax ne moom jël moom jëlale na ko waaye su ko xamutoon sëñ Mbàkke Buso mi mu xam ak jikko yu rafet yi mu xam ci moom xam na ne ku mu topp rek kooku la muy woote dëgg la mooy kooku sëñ Mbàkke dafa yàqu derub sëñ bi dafa nekkee noonu ak bërki dem mësuñu ko gis boobu ba tey ji mu mu gis mukk ñu def naka sudul noonu mu di ci noppi nee na du ko def ngir ragal ki ko def du ci noppi ngir ragal ki ko def du ci noppi ngir xeeb lañ def lu nit def ci naka sudul noonu ci kanamam loo ko jege-jege ak lu mu la fonk-fonk ci saa si dalay daal di jubbanti lu ñu def ci kanamam ci naka sudul noonu lu mu tuuti tuuti du ko xeeb ci saa si day daal di wax niñ ci war a taxawee gis ngeen ñooñu Sëñ Mat Lamin di nettali soxna soosu ñëwoon ci kër sëriñ bi ci njaareem nekk ci ci keesu soxna yi di wax ak waa sax yi nee na di jëw ba xaabaabal ci jëw bi nee na bi mu commencé jëw rek waa sax yi moom noppi nañ ndax xam nañu sëñ bi bëgg ko te xam nañu sëñ baa ngi leen dégg nee na bi soxna bi gan gi ëppalee la sëñ bi jóg rek gëdd leen fi ñu nekkoon ñu tëb ñoom ñëpp daw dem sëñ bi na basan gi ñu toogoon nañ ko tàllak ko xam ne basan gi ñu toogoon di jëw sax da koo lakkul ak léegi moom ni mu mel daa mel ne nit ñi dañoo juboo ci ne ëllëg moom suñu borom du du du àtte jëw moom loolu lay niru daal lool lay niru ndax ndax ndax waaw fépp la ñuy jawee léegi waaw diggante bi bi ñuy liqaam ak bi ñuy taxawal sax gaañ ñi dañu fiy jëw léegi kenn xamul lu mu doon dama xamul ci li ñuy lekk la nekk xam waaye jafe-jafe la xam naa ne jafe-jafe la daal waaye yooyu yëpp daal war nañ cee war nañ cee bàyyi xel euh, sëñ Mourtala mi ngi naan waxtu wi kon mën na ma rek euh, bu ñu doon tënk waaw sëñ Moutala nee na waxtu yi mën na daanaka kii na nee na des na tuuti bu boobaa ñu ñu ñu bu ñu doon tëj rek mën nañoo tàmbali tënk kon ndax xam naa suñu laat maa ngi ko gis muy xool montre bi rek xam naa waxtu bu sëbee mën nañoo bu ñu doon soññ mën nañoo wax rek ci ne <clears throat> lii ñu wax lépp. ak lu ñu waroon a wax te waxuñu ko des na ci jàngate yu bari bi ci jiitu mooy ñu xam ne ay teggin gii ñu doon waxtaane lu ama am solo la ci dundub doomu aadama bi am na solo ci ak dundam fii ci àdduna am na solo ci ak dundam ci àllaaxira bu ñu demee ci naxaju xadaayil xaaj Cheikh Xadim da ciy wax ne wa yujibul madxala dal jiraani kama yubaaxidu an niiraani ne ay teggin dana tax nit ki rafetoo ak ñim dëkkal ñim nekkal ñépp dana tax mu mu mane ak ñoom ne ay teggi nit dina tax ba bu ëllëgee nit ki sori sawara kon ay teggin am na njariñ ci àdduna am na njariñ ci àllaaxira sëriñ bi wax na ci masaalikul jinaan ne képp ku bëgg a dem ci suñu borom te jaarewu ko ci ay teggin bu ngeen di wër nit ku ku ku amul xel na ngeen jàpp kooku fa kullu man bi gayrihi raamal wusul li xadratillaahi fa xumrun la nabil képp ku ngeen gis mu bëgg a dem ci suñu borom te jaarewu ko ci ay teggin bu ngeen di wër ku ku ku dof na ngeen jàpp kooku feeñ na ci biir waxtaan wi it ne ay teggin lu am solo la ci biir yoon wi ñu nekk muy yoonu murit ndax sëriñ bi da koo sos ci ñetti mbir da koo sos ci ñetti mbir muy al ilmu naafi muy xam-xam bu am njëriñ al amalu saalih muy jëf ju baax al aadaabul mardiya muy ay teggin yu ñu gërëm ñett yooyu benn bi mooy teggin kon muy ñetteel bi foofu rek feeñee na ci lool teggin solo si nga xam ne am na ko ci biir ci biir murit gi ñu nekk moo tax sëriñ bi am na fu mu bindoon bi mu nekkee ci géej gi di fàttali mag ñi ba junj leen ñett yooyu ne leen ñett yii daal muy xam li ngeen war a xam ci seen diine fexe ba njaboot gi xam ko ak di ko jëfe boole ci ay teggin ñett yooyu mooy yi nga xam ne mooy yi ñu leen yi leen di nawee yéen li feeg mu ngi ci yéen nit ñi di gis ci yéen lu ñu leen di ñee waaye saa bu ngeen ko bàyyee nag yem ak ñépp jamaalukum ilmun wa saayun wa adab falaazimuha yunfa ankumul wadab na ngeen sax ci ñett yi feeg yéen a ngi sax nit ñi di am gis ci yéen lu leen di ñee waaye saa bu ngeen ko bàyyee nag yem ak ñépp xam ngeen yarub murit lu tasaaroo la léegi sax mujj na di jeexital ci biir sénégalais ba ci ni ñuy solo ni ñuy waxe du ñu wax jëkkër boroom kër la wax wala ab sëriñ du ñu wax jabar soxna la ñuy wax du ñu wax doom tout tànk la ñuy wax euh, du ñu wax sax euh, ay laxasaay la ñuy wax du ñu wax ay yére ak yooyu bëri na waxinu murit yi ku la fel sax bala nga koo bala ngaa boo felee nii sax bala bala ngaa jéggalu mun la jéggal ma yooyu ci yarum murit la bokk boo xam ne dañ loolu ay akki la maanaam dañ ko war a téye ñu bàyyi mu rëcc ñu ndax yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne ci ci li ñuy xàmmee la la bokk ci suñu ci suñu identité la bokk mu yaru murit bi nga xam ne léegi sax tàmbali naa tasaaroo ci biir ci biir Sénégal yépp waaye feeñee ne ci biir waxtaan wi it ne yi ñuy wax sëriñ bi daan na ci woote waaye moom moo ci jiitu woon sëriñ bi xam ngeen fonk na ko ba am na téere bu mu bind tuddee ko nax ju xadaayil xaaj muy téere boo xam ne ci ay teggin dong la jëm di téere boo xam ne moom ñépp ko war a jàng ku ne war naa fexe b njabootam jàng ci anam bu ko mën a jàng jàng du téye téere bi di wax rek waaye donte dañ leen koy wax ci olof baa ci tukkuloor baa ci séeréer baa làkk bu mën a doon ñu fexe bañ xam rek li ci ne ndax sëñ bi li mu bëgg rek moo ñu jëfee ko du ñu di ko taree téere la boo xam ne sëñ bi njaboot gi ñenn ci njaboot gi ñoo ko sàkkoon ci moom mu bind ko am nga wax na ko ci njëlbeen gi haza wa inna lyawma zu ijaba ba'da al muridina zawil ijaba istalabu nazman hawa ta'adduba li ta'addabu wa zaka wajaba ne tey maa ngi bind téere bi di ci wuyu ñenn ci njaboot gi fere yi ñoo sàkk ci mën ne naa leen bindal téere xam-xam boo xam day jëm ci ay teggin te nag sàkku nañ lu mat a sàkku ndax teggin waxoo fi daaray ne xayru kanzi wa xayru matazza bihi zu izzi mooy li nga xam ne mooy lu gën ci lu nit mën a damoo ci kaw suuf lu mën a jaay moroomam ay teggin mooy la ca gën téere boobu bi ko sëñ bi bind bayit wi mu ci njëkk tàmbulee rek bu ci yemoon mënoon naa bind bayit wi ne subhaana rabbika rabbil izzati mu jeex danañ ci jàng ay teggin bayit wi sëñ bi njëkk wax mooy xaala bnu cheikhihi allazi laa yaxmadu fi nafsihi si wasmihi muhammadu ne ki bind lii mooy doomi sëriñam bi nga xam ne bi mu xoolee boppam ba mu daj gisu ci dara lu jar sant lu dut tudd gi mu tudd muhammad gis ngeen xam-xam bu rëy bi mu am bañ di ko bindloo ay téere mbooloo mi ko topp loolu lépp doole yi lépp gisu ko nee na bi mu xoolee boppam lenn la ci gis loo xam ne gis na ne lii moom rëy na te fees na bëtam mooy tudd gi mu tudd muhammad sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam kon loolu it war nañ ko jàngatee bu baax ci ne teggin yooyu ñu doon sàkku ci sëriñ bi dañ ko gis ci moom moo tax ñu doon ko sàkku ci moom te xam ngeen sëñ bi dafa fonkoon ay teggin ba dara nag sax ci di ko ñaan suñu borom wa hab lana al aadaaba wal mazaya wa kuffana al aafati war masa ca mata bu shifaay na nga ñu defal ay teggin defal ñu ay may te musal ñu ci lépp loo xam ne rek euh, naka su noonu la rek ci biir ak biti moo tax sëñ bi daa junj ne moom li ñuy jariñoo ci moom li ñuy jariñoo ci moom mooy ab yar daan na junj ne li ñuy jariñoo ci moom mooy ab yar waxoon na mag ñi ne leen kër gi yar bi ku ko fi jëlee bawu fi dara ku ko fi bàyyi jëlewu fi dara ne leen kër gi yar bi ku ko fi jëlee bawu fi dara ku ko fi ba jëlewu fi dara mooy li ñuy jariñoo ci moom mooy ay jikko ak yar ak teggin ak njullite moo tax sëñ bu so bokk ci kenn ci ñi nga xam ne sëriñ bi dalee na yar bi muy tàgg sëñ bi tàgg na ko ci anam googu wax ne kat sëñ bi moo ñu yar moo ñu jubbanti moo ñu jubal moo defar suñ biir ak suñ biti moo defar suñ biir bañ bokk ci jullit ñi dëgg suñ borom bëggoon waaye moo defar suñ biti ba nga xam ne ku ñu gis naw ñu huwal gawsu wal miryaasu rabba xuluubana wa ajsaamana fal kullu saafin wa naim defar na suñ biir bañ nekk ay dëgg-dëgg jullit bokk ci nit yàlla yi defar na suñu biti ba ku ñu gis naw ñu murid yi ku leen gis naw leen murid dëgg ku ko gis naw ko loolu nag mbir la moo xam ne dañ ko war a jëmbat ci biir njaboot gi waruñoo bàyyi mu naax saay fi mu jamono naqari na li ñu woowee choc des civilisations internet bi am na mondialisation daanaka nit ki tëju mënatut a ne maanaam kenn mënut a tëju rek ne damay tëj sama njaboot boo ko tëjee li nga doon daw jàpp ne tëjuwaale nga ko ci sa biir ndax internet beeg yooyu waaye dañuy fexe ba ni ñu koy lijjantee mooy dañuy fexe ba yee leen ñu xam ne yooyu yëpp ay xéewal yu fi suñu borom indi wa ma bikum min ni'matin fa min allah xéewal yi leen seen borom defalit wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen doon wàññi li leen seen borom defal ci xéewal du ngeen du ngeen ñu xam ne internet yeeg yooyu yëpp ay xéewal yu ñu suñu borom xéewale waaye nag dañoo war a yee njaboot gi ba ñu xam ñoom nañ koy jëflanteen ndax sëñ bi waxoon na ko taalibe yi ne leen bu jamono soppi ko ci lu naqariwul yàlla da ngeen di soppi ko ànd ak moom ndax su ngeen ko defut day jaar seen kaw jàll internet bi kenn mënut a wax ne bu ci njaboot gi dugg waaye dañuy fexe ba yee leen nag ba seenu murit dara loo xam ne lu koy lu koy ñagasal la du leen dale ci internet bi bu ñu duggee ñu xam xam ne internet mën naa doon lu am njariñ ma mën naa nekk xéewal ci nit ki ndax dinañ ci jokk mbokk dinañ ci joti xibaar dinañ ci sàkku xam-xam dinañ ci jànge dinañ ci liggéeye waaye nag mën naa paaka ñaari boor la dana yàqub der dana yàqub diggante dana def dana yàq temps dana def naka sudul noonu maanaam mën naa mujj nekk majaalisu saqaawa gi ñu sëñ bi doon teree ca la bul ca tasawuru sigaar bu ñu wattandikuwut internet mën naa mujj nekk lool ci nit ki kon loolu it waajur yi war nañoo jiima yee njaboot gi xam ne jamono ji ñu ne internet bi lu mat a bàyyi xel la ndax dafa dugg ci suñ dund gi fi mu ne kenn mënatu kenn mënatu koo mënatu koo bàyyi ginnaaw te àdduna moom nii Serigne Saalix radiyallahu anhu waxoon la mel daf ne woon àdduna dafa mel ne ab tëli dem nii ne nit ki fi ko jëlee ni tëli bi mel rek ci lay mën a dawe bu dee fi nga ko jëlee ay paxa fa ne noonu nga fay mën a jaar bu dee tëli bu tàlli nga fa fekkee ci tëli bu tàlli ngay daw ñun nag jamono jii ñu dajal jamono ji la jamono internet la jamono jaxasoog ñëpp la nit nag bu dee mënut a jaxasoog ñeneen dañuy fexe bam xam boppam ngir fu mu keneen nit moom démbam ak li nga xam ne moom lañ ko nawee moom lañ ko xamee mu mën koo sàmm ba du ci jóg mu ko loolu sëriñ bi daana ko digle fexe ba fu ñuy dem rek ñu nekkal ko fa bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy yàq dañuy yàq ab daram euh, feeñe na ci biir wax ji ne ndénkaan yii sëriñ bi dénkaane njàngale mi mu jàngale mbir mu universel la maanaam mbir mu universel la mooy jamono yépp mën nañ koo jariñoo barab yépp mën nañ ko fa jariñoo ndax yii ñu fi wax yépp sëñ baa ngi ko wax diggante Mbàkke Kajoor ak Njaareem diggante boobu la ko wax daanaka jàppal ne ci ñeent fukki at gën gaa bari ñeent fukki at ak nangam muy li fekk si moroom ci la ko wax ñeent fukki at ak nangam jàpp juróom fukk waaye loolu lépp teewut ba jamono jii ñuy ne mu ngi valable te bu ñu ko waxee day mel ne tey jii moo taxoon siñ bi di ko wax sëñ bi mi ngi ko waxoon ci diggante barab yooyu te ba fi mu ne nii bu ñu ko yóbboon bitim réew muy France muy Amérique ñu mu doon bu ñu leen ko waxee bu ñu ko jëfee mu jariñ leen loolu des na ci déggee ne kon njàngaleem sëriñ bi war nañoo fexe ba tasaare ko ba ñëpp jot ci ndax lu lu lu lu lu yàlla loo xam ne warta doon rek lu ñuy tëjoo ci suñu biir euh, waaye dañ ko war a tasaare ba ñëpp jot si murit gi nag dañ ko xaw wolofal ñun ba mu ëpp dañ ko wolofal ba fi ne nekk murit te nekk wolof sax yombut loolu nag jafe-jafe la jafe-jafe la ci tax murit gi tasaare ko xaw a jafe xëy na loolu benn tomb la waaye nag njàngaleem sëriñ bu doonee lu mën a tasaaroo ngir àdduna séppit sëñ bi waxoon na ko mu njëkk ndax waxoon na ne moom mbindam mépp mi ngi koy jëlee ci lawxul mahfuz kitaabati min lawxi rabbi tunqalu laa yamtari fiha nabilun yaqilu ne sama mbind maa ngi koy jëlee ci lawxul mahfuus te loolu nag ku am xel du ci am lu muy sikk sàkk ci li ma wax kon euh, waxtu yaakaar naa ne mi ngi jege bi ma bëggee tënk sax yàgg na waaye dañ maa waxoon naa dem ba ci kanam tuuti rek kon daal li ñuy tënkee rek mooy di wax ne tomb bu am solo lañ doon waxtaane boo xam ne ni ma ko junjee woon ci njëlbeen gi mëneesu ko waxtaane ci benn jotaay su ko waxtaane ci ñaari jotaay mënees koo waxtaane sax ci weeru lëm ndax sëriñ bi ci ak dund la ko def ci ay at yu bari ci at yu barkeel sax nag ci la ko def kon loolu bu ñu koy waxtaanee ay junj rek lay mën a doon euh, maa ngi sant bu baax euh, mbokk yi nga xam ne mooy daayiratu Muxaddamatul Xidma di ko tàmbale ci suñu kilifa sëriñ Afia mi ko jiite ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci barab bi ak waxtaan yi nga xam ne woo ñu ci te lépp rek ngir bëgg ñoo dimbale waaye du dara ju ñu am ngir wax dara waaye xëy na bëggoon ñoo dimbale ak bëgg ñoo soññ rek ñu ngi leen ci sant bu baax di ci am mbégte di jégalu bu baax a baax ndax xëy na waxtaan wi waroon naa gën a leer waroon naa gën a yaatu ci nii waaye bu fekkee da nga yaroo ci ay busu buso bu bu jeexeetale ci yow koor gi bu agsee fii faw booy waxit nii rek lay mën a mel te man ay busu buso laa dëkkal samay nijaay yoo xam ne xam naa ne loolu jeexeetal na ci man waaye daal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant suñu borom mu ñu baaxee ba ñu mën a bokk ci wàkka sëriñ bi muy tawfeex bi mu tawfeexale joo xam ne du fàggu teef du liggéeyam nday du dara waaye tawfeex gu ñu suñu borom baaxee la rek ndax sëriñ bi ne woon na ñu mu àndal ñëpp moom moo leen tànnal boppam kon loolu sens rek la ci nit di mën a duggee koo xam ne ku ànd ak moom texe àdduna ak àlaxira loolu la ca boole sens dong lay mën a doon waaye du luñ fàgg du luñ lay fàggalu dara maa ngi tuubalal yàlla di jéggalu sëriñ bi ndax fi ñu nekk jege na barab bi lool waroon nañ fee nekkee leneen lu dul di yëkkati ay kàddu di jéggalu mbooloo mépp gis naa fi samay sëriñ daara gis naa fi samay magi daara gis naa fi samay wëllëre yu baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp bu ñu fi teewee rek euh, man awma fi kàddu waaye xam naa rek noonu la ko la ko gaañ a bëggee woon moo tax wasalaamaaleykum wa rahmatullah